effectivement musuma woon imaginer que ni Sénégal. dañ dem ba ay nit ñu leen di lakk. <laughs> Euh, mais mais situation bu mel nii bu amee man li may njëkk a def moom mooy comme dañu nekk ci dëkku yoon ak dëkk boo xam ne xarañ nañu ci wàllu enquête ma xaar ba enquête bi ñu dévoiler ko pour ma mën a wax ban boor la jóge je pense que c'est très important et je pense que en euh, en personne responsable war nañu éviter lu mel ni am ñu koy teg ci ndoddu benn parti politique bu mu mënti nekk. je pense que c'est important il faut que il faut que ñu ñu am tuuti recul. Mhm. et que ñu ñu waaw nit dafa am retenu daf ci daf ci am solo parce que euh, lii mën na jóge fu nekk aussi. donc je pense que Euh, maandu dafa baax si ay situation yu mel ni pour xool un peu fan la ñu jëm ak ak moom parce que nit ñi aussi am nañu ay gët am nañu xel soo gisee situation bu mel ni nga am gendarmerie ak police bu xarañ da nga naan ñu bàyyi gars yi ñu def seen enquête ba ñu xam fan la fan la jóge il faut il faut que qu'on se retienne jël affaire bi teg ko ci ndodd ku mu mënti nekk buñ ko teg ci ndoddu état buñ ko nekk ci ndodd Pastef bu ñu ko teg ci ndoddu taxawu Sénégal bu ñu ko teg ci ndoddu Bouba Ndour bu ñu ko teg ci ndoddu Abdoulaye Der ñu xool un peu ce qui s'est passé loo xam ne c'est lu ñu mësut a gis la ñu xool suñu xarañteefu euh, enquêteurs yi ba ñu trouver ñu exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que aussi l'interprétation de des uns et des autres mën na mën na induire nit ñi en en parce que ni nit mën a demee ci réseau sociaux yi di jéem a insinuer maanaam di jéem a gëmloo que ni lii du dëgg noonu la nit aussi war a war a réserver woo toog ci télé. Mhm. di wax parti bii la jóge wala parti bële pour pour parce que pour man quelque que soit nit bi ko wax muy réseaux sociaux mu tel ki ko wax ci réseaux sociaux yi naan ay ay coup monteel ak manipulation la kooku ni mu amee responsabilité ci affaire bi noonu la ko keneen koo xam ne dafa toog ci télé bi ne par exemple diw la wala diw amee noonu waxante dëgg dara munul xew nga jël ko jiiñ ko nit te yow amuloo ci ay preuve diine bëgg ko te maandu wax baax na ci maintenant bu enquête boobu kiiwee ba ci kanam ñu mën a xam lu ci xew mais lu mel ni ci contexte bu mel ni ça fait mais man je me réserve de ne pas jël affaire bi ma imputer ko ku mu mënti nekk. waa waaw je te ñu daan wax ne Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee dëkk bi tàkk. Mhm. bu ñu ko jàppee guerre civile am. Mhm. ñooñu. qui sont partis de ce qui légitime ces actions. waaw mais mais mais mais non grand euh, xam nga xam nga lan mooy problème bi xam nga lan mooy problème bi euh, man yow mën nga jël responsabilité ne lii fi xew waa Pastef la. bien sûr waaw yow. mais dama ne la man xam nga dafa am dara lu am solo dama ne man ba léegi tudd ma dama ne lu mel ni bu amee dama bëgg enquête bi.

mais man li ma li ma mën a wax. Ah, mais bu nit nee Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee dëkk bi dana tàkk guerre civile dana am. guerre civile dana am. xar magale bu ñu nee maanaam bu nit nee Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee guerre civile dana am. loolu bokk na li ma la mais mais président. président légitimer lii mais bu ñu toogee c'est ça c'est un président extrêmement grave président. président bàyyi moom may eggali parce que je pense que bu ñu bu ñu bu ñu toogee ñu seetaan ñoom dinañu mën a euh, peut ku ne apprécier ku nekk sa position dama ne man. lu mel nii. fan la jógee ndax c'est officiel loolu laa bëgg xam. naa la ko jox c'est c'est aussi grave ah. non man non man du ma du ma. kon baax na ñu déglu tey. waaw parce que parce que peut-être les visions yi mën na wute daal mais je pense que il faut ñu respecter dara mooy lu mel nii ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais ñu gis ko mu choqué ñu lii. je pense que nu mu ñu choqué noonu la ñu war a am et ba nga xam ne duñ ko jël teg ko ci ndodd benn nit wala benn parti moi je pèse mes mots parce que dans la vie aussi il faut nga mën a am tuuti retenu mënuloo dara ñëw nga jékki-jékki ne diw boo ko def parce que ki jiiñ ki jiiñ état ni moom moo ko def ah ki jiiñ benn parti bu mu mënti nekk wala benn individu bu mu mënti nekk moo ko def benn lañu benn lañu parce que loo loo dara am yow xamuloo fu mu jóge nga jël ne ko diw moo ko def wala ñii ñoo ko def loolu tooñ la dara bu amee yoon di ko enquête da ngay bàyyi ba mu jeex nga xam fu mu fu mu fu mu jógee fu fan la faxe ko c'est très important nit ñi nag mënuñu leen empêcher ñu am retenue parce que retenue dafa am solo ci dara lu mel ni ah, bu ñu ñaawloo ba pare ah, ah. suñu ñaawloo lii loolu te ñun ñëpp dénominateur commun bi mooy que ñun ñëpp en tant que sénégalais ça nous fait peur dafa am dara loo xam ne dafa am mais dafay bax boobu muy muy bax loolu ñëpp koy santi dëkk bi day bax ci suuf da dañ koy sentir donc lu mel ni bu amee ñun ñëpp lay choqué mais quand nañu nañu parce que am na loo xam ne est-ce que est-ce que dafay dafay yokk naar bi karaw xaw ma xaar mi karaw wala déedéet yenn yenn yenn xaar mi karaw yenn position yi je ne pense pas que nekk na position boo xam ne dafay désamorcer mais day gën a kii parce que bu mel ni amee ñu jël ko jiiñ ko ku mu mënti nekk loolu du du woote jàmm mais woote jiiñ la te loolu quand euh, tey jii nii accuser un parti qui je pense que amatul benn risque mais <laughs> bon loolu la woon. mais <laughs> mais je pense que je pense que man je me garderai daal. je suis pas fait pour recevoir xam nga parce que parce que tey jii nii tey jii nii boo gisee soo gisee ministre de l'intérieur mu déplacé wu. tu donnes ça à d'autres. non je suis le ministre de l'intérieur. lu mel ni am ma déplacé wu. ñëw nekk fa seetaan ko. ah ma ma yeewu suba nit ne ma yow yaa ko def. ah su ma ko deful dina ma metti trop dina metti sama njaboot te loolu tooñ la mais aussi sama bu nekk fële toog fële dara am nga ñëw ne ko yow yaa ko def wala yaa ko te amuloo ci preuve loolu tooñ la nañ leen de ñaawlu lii te fexe nan lañ koy régler au lieu ñu koy jël di ko teg ci chapeau wu diw wala diw man de duma ko def. Badara pour man DER acte bi